dañuy daal di dolli sunu ngërëm dolli sunu cant ci sëriñ bi euh, ndigal lu mu joxeloon wéy nañ si boo xam ni que lépp jaar na yoon dalal nañ ñu yaatal nañ ñu comme lu ñuy wax rek euh, lépp sëriñ bi moom lépp sëñ Touba lépp xéwal la lépp sëñ Touba lépp xéwal la kon daal di feddali sunu kóllële sëriñ bi rek daal di ko ñaanal yàlla guddal fanam yokku koy wér ndax kontaan nañu bu baax a baax a baax te bëgg nañ fi dellusiwaat lii ñu koy def at yu bëri bëree bëri ndax lépp sëriñ bi moom li ma wax rek ngëneel laa xéwal fu mu toll nii vraiment kontaan nañ torop ndax euh, biñ fi ñëwee ba tey dalal ngeen ñu euh, jàppale ngeen ñu ci suñu liggéey ba tey euh, ñu pare ñëw ziyaar si sëriñ bi bëgg nañ torop kontaan nañ torop parce que chance la chance la du ñëpp moo du ñëpp ñoo mën a dajeek sëñ bi kon buñ ñëwee fii tey mën ko ziyaar ba mu ñaanal ñu vraiment kontaan nañ torop